ñu koy def chaque année. teel daal li ñu ko faj teel. teel tey jël ay matuwaay. ba nga xam ne explication bi du law. law centre de santé. ñoom ñëpp ñëw. dëgg la. waaw am nañu ok. nañ ñëw. waaw. gërëm Koungheul incha di sant yàlla rek di sant yonent bi julli si si ñaar yàlla di waajur. Mhm. tey gërëm yàlla. Mhm. te gërëm leen xale yi loolu. Mhm. ndax bëgg nañ seen famille. bëgg nañ seen askan. ndax lii mag ñi njëkkoon nañ fi te mosuñ koo am. kon suñ toogee léegi ba xale yi pour defar dëkk bi. di jóg ba bëgg a xam ne mag ñi amuñ xaalis seen ñu nekk seen waajur amuñ xaalis uh-huh. ñu jëm jël seen i matuwaay uh-huh. jël seen uh, alal ñëw def ko ci luur ndax bëgg askanu luur uh-huh. ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te Mokhtar Sarr fu sa yaay ñoom taxawoon awa jëm ñoom taxaw ngeen fa ndax ñoom ñoom fañ nekk ñoom mag ñu njëkk ni liggéey liggéey bu rafet liggéey bu rafet mag ñu nekkoon fi ñun nekkoon nañ fi waaye lii seen xel yi nekk suñu xel yi nekku fa ndax jàngalu ñu la ndax yéen seen jàng mi moo tax ngeen mën a am lii ñun nag ñu fekkoon suñu xale yu mat na ko mhm. waaye nag njàng mi tollu ko woon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te gërëm ñi xam ne ñoo def programme bi mhm. yal na yàlla dafa leen may leen fan gudd ak wér gi yaram te lafa leen cat ku bëgg a dox seen diggante la yàq leen yal na yàlla dox seen diggante si barke sëñ Fallou barke Cheikh Tidiane sant te di gërëm mhm. te di leen ñaanal yàlla mhm. fii ngeen teg seen tànk mhm. yal na ko yàlla gën a kaweel yal na yàlla barkali seen i liggéey mhm. yàlla may leen wér ak le te lép lu ngeen di yor yal na ngeen ko jot lépp lu ngeen di daw ci lu bon yal na ko raw yàlla guddal seen i fan te wéral seen ceer ñu ne kontaan bu baax a baax a baax am nañ garab yi ñu bëggoon sant nañ yàlla bu baax a baax te def ñàkk ci benn dërëm te lép yéen a ko waral kon nag ñun li ñu man mooy di leen sant te leen gërëm te yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla aar ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam may leen wér ak fan rek kontaan nañ bu baax a baax a baax kontaan nañ bu baax coono ba démb ba moo wàcc tey coono démb bi tey wàcc na gàcc ngaalaama jërë ngeen jëf waay kontaan nañ ndax taxar nañ ba sonn bojj nañ bay bëgg a dee waaye nag léegi suñu taxar na ak suñu bojj mi alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi koy def ay glace def ko ay ginaar def ko ay béy. macha allah ñun léegi ginnaaw la ñu réeree <laughs> béy la ñu añee. macha allah ndax yéen xale yi yéen a mën yéen a koy defal jërëjëf. jëf jërëjëf euh, World Vision UNAM euh, xibaaru Bambuk muy yéen euh, mais aussi ñuy delloo njukkal ki nga xam ne nii c'est un fils du terroir. <laughs> ci jàppandalam ci accompagnement aussi tax na lii am. mais remercier particulièrement la population louroise parce que lii ñu def nii tey bu fekkente ne def nañ ko. Euh, c'est parce que ñoom ñoo ci jàpp ñoo ci dugal seen loxo dugal ci seen alal seen xalaat seen temps ak seen ñax loolu moo tax journée bi am tey mais bu doon euh, sama jëmm ji rek wala jëmmu Ablaye kese euh, docteur Touré amaana lii du doon mën a nekk. Mm-hmm. donc cant gi dañ koy waat ci la communauté louroise. mais aussi delloo ko ci partenaires yi nga xam ne ni accompagné nañ pour lii mën a nekk moo xam muy World Vision wala le conseil municipal de Lour ak bonne volonté yi nga xam ne nii n'ont jamais hésité Euh, mettre la main à la poche pour mettre à notre disposition euh, tous les moyens yi ñu permettre tey ñu réussir journée bi. lii nag euh, li tax ñu def ko mooy MTCL dañ ko créé boobu def na at ñuy fêté anniversaire am ñu ne nag ñu def lenn loo xam ne nii dafay amal njëriñ la société louroise la commune parce que suñu slogan loolu la suñu créneau loolu la li ñu tax a jóg loolu la poser des xam ne nii. CRTC euh, posé par un mouvement politique mais qui soit bénéfique à la société à la communauté rurale. Mm. loolu moo ñu tax a jog mm. bon loolu moo taxoon tey ñu ne bi ñuy fêté anniversaire euh, création mouvement bi. Ah. ñu def benn activité boo xam ne nii euh, képp ku nekk ci commune bi di nga ci gis sa bopp di nga ci sentir sa bopp. Mm-hmm. comme li ñuy wax rek on n'a pas de temps a perdre on askan bi moo ñu tax a jóg moo ñu tax a nekk moo ñu tax a nekk. lii ñu def nii tey bu ñu defee évaluation dañ koy fàtte ranger ko aux focus ci lan ñu jublu ci lan li nga xam ne nii moom mooy ouverture scolaire bi période bi école di ubbi day fekk poche yi li ci lu bëri nekkagu ci euh, xale yi war nañ inscrire war nañ jënd fourniture ni ñu ko defee woon daaw équipé élèves yi nekk ci CM bi yëpp ci collège bi en fourniture ñu fexe ren aussi bépp élève buy jàng ci CM bi ñu fexe ba nga am cahier yi nga xam ne moom nga war a jàngee ji foofu tey mm. waajur yi duñ ci sonn loolu mooy prochaine activité bi nga xam ne ni envisagé nañ ko luñ def ko ci du dul yàgg dara incha allah waaw projet yi bëri na amaana li ci xol bi li ci yéene loolu amuñu kàttan pour def ko mais dañuy jël lépp ñu teg ko ci loxo borom bi euh, lu mu teg loxoom lu nekk du jafe te am nañ firnde bi tey ci journée bii nii ci journée consultation médicale gratuite donc lii suñu yéene yëpp gox bi pour le département pour le Sénégal la région de Euh, loolu mënuñu nekk fii di ko lim mais dinañ ci bay suñu waar def ci suñu kéem kàttan pour que liy saafaraal jafe-jafe yi ne ci gox bi li nga xam ne nii day participer à l'amélioration des conditions de vie de la population louroise lépp lu ci MTCL mën mu def ko parce que man koo taxawu commune de luur la wax donc lépp luy jafe-jafe dinañ leen ci taxawu ci lu tolloog ci sunu doole ak sunu mën-mën ba lu yàlla dogal rek ñu xam ne loolu la loolu la namu ci ñu euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci ñi woon foofu laay jeexewaat Euh, remercier docteur Touré du yoon sax ngi koy remercier ndaxam parce que c'est un fils du terroir tey ci école bii ñu defee journée médicale bi fii la jàngee ñun fii la ñu jàngee donc dañu delluwaat fa ñu dëkk. Hmm. Euh, remercier Bambouk santé bi nga xam ne nii aussi mettre na tout ce à sa portée à notre disposition. Euh, remercier World Vision comme partenaire le conseil municipal de Lour comme partenaire Euh, remercier UDAM remercier xibaaru Bambouck ak ñëpp képp koo xam ne nii jàpp nga ci journée bi d'une manière ou d'une autre mais sincère remerciement à la population louroise parce que dañ ci taxaw du début à la fin de la phase conception jusqu'à la mise en œuvre te tey bi ñu clôturé ñu ngi waat ci biir pour bagage yi donc la jeunesse louroise commune de Lour ñu ngi leen di remercier jusqu'au fond du cœur amuñu seen fay ñi dëkk Lour ñi dëkk ci commune bi amuñu seen fay dañ ci jàpp dañ ci def seen loxo moo tax lii mën a nekk je vous dis la vérité lii li ci def li ci jugee ci sama poche dugg ci journée bi bariwul c'est minime c'est rien du tout mais li ci dépensé c'est des millions c'est parce que ñoom ñoo ko financer seen bopp au delà des contributions des partenaires ñoom ñoo ko financer seen bopp lii activités yi aussi ñoom ñoo ko def donc ñu ngi leen di remercier euh, di ñaan yàlla aussi ñu defaat ay yeneen édition te bu ñëw rek ñu atteindre objectif boo xam ne c'est au de li ñu def cette fois-ci euh, comme li nga wax noonu xam naa duñu tudd turam sax mais euh, comme ni ñu ko waxee dafa amoon paralysé donc déplacement ñu tawataloon ñu koy jàppandal maanaam fauteuil roulant waaw loolu si yàlla ci kattanam ci mën-mënam MPCL mouvement bi ak ñi ko jàppale ñëpp jëndal nañ ko fauteuil roulant euh, mettre nañ ka sa disposition yóbbu nañ ko ci famille am jox ko ko euh, ñu ñu jaamu ci yàlla comme li ñu wax rek. taxaw askan wi moo ñu tax a jóg loolu lañ tuddee suñu bopp mhm. nit ki nag li ngay wuyoo defe naa ne da ngay fexe noo ko nuroo mhm. donte ne sax doo ko mën a nuru mais nga góorgóorlu si pour nuru ko donc dinañ fexe daal lépp fu jafe-jafe nekk luñ ci mën a taxaw ñu taxawu ko waaw mhm. ah, li docteur wax lu ñu dig kenn luñ mënul nag luñ digee sax d'ailleurs dafay mën dafay mën a nekk rek mu jot ñu def ko après ñu avancé jàll ci leneen voilà nga may ma ci occasion bi ma rendre vibrant hommage au président docteur euh, Mbaye Diop Eh, à travers sa collaboration, son accompagnement, son appui, eh, à travers sa personne, ñu remercier toute sa structure Bambouk Santé. Eh, je pense que bu dul woon ñoom lii du loon du loon nekk aussi du point de vue technique surtout. donc ñoom jàpp nañ ci et le poste de santé de Lour également son accompagnement. ñu ngi leen di remercier di ñaan yàlla aussi yeneen édition bon comme ni ñu ko waxee ñu fixé ñu atteindre objectif bi gën a kaw. ok docteur non non di merci beaucoup PDG Amadou Mokhtar wax ne du mu wax docteur Abdoulaye Touré damay wax Abdoulaye Touré rek. mbégte la tey ma dellu si fi nga xam ne fi laa fi laa jóge ko. fi laa commencé. mais aussi euh, defee fi lépp tey su ma fi ñëwee ay xàmmeel ay mbokk rek laa fi sek loolu nag lu ko permettre mën nañu wax ne à quatre-vingt-dix pour cent grâce à suñu frère El Hadj Malick la. bi nga xam ne nii depuis États-Unis la ma wax ma projet bi. mu nekk lu ma neex bi. conception du début à la fin ñu nekk ci te vraiment à toutes les obligations aussi da ko respecter donc mhm. je pense que tey suñu yegsee fii tey am su doon benn nit sax la ñu xool tey xool day fees mhm. parce que tey peut-être am na ñoo xam ne ni tey ba ñuy tudd si ngeen di lu ñëwoon ñaanoon nañ kat ñii ñuy tudd day ñu dem ba jëriñ dëkk bi mhm. loolu su demee am rek dañuy sant yàlla muy ñëpp nag ñi si jàpp bu ku nekk si bunt bi ba ki nekk ci kaw donc ñëpp si jàpp comme ni nga ko waxee tey euh, mbégte la lañu am parce que tey soo xoolee euh, mën nañu wax ne ñi si jàpp bëri nañ. Mhm. rawatina bambuk santé bi nga xam ne nii man semaine bi moon jot ñoo coordonné affaire bi. Mhm. début à la fin. Mhm. vraiment aw ma seen remerciement parce que man lañ ko defal. wax nga MTSN jot jot na mais man lañ ko defal pour man. mais aussi. am Makhtar Sarr sur la communication vraiment on a vu que jàll na. te vraiment gis nañ tout xibaar bu am di ñaan mu dem ba nekk si journal yi gën a ngàll. beneen chose qu'on peut dire sur le bi c'était sur plusieurs facettes. def nañ circoncision maanaam ay xale donc dañuy toll ci soixante seize. presque téeméeri maa ngi tuuti. loolu su paasee defoon nañ dépistage cancer du col. cancer du col mooy cancer bu jàpp lu kaay bi. vraiment femme ñëwoon yëpp affaire bi beneen chose aussi bi nga xam ne ni am na tey def nañ des soins à domicile bañ fi juree ko am nañ ay besoins yu fi juree ko avec euh, El Hadj wax naa ko dañ fexe ba besoins yi ñu fexe ko satisfaire au nom du mouvement. beneen chose aussi euh, consultation dentaire c'est la première fois mu am. vraiment doomu lu def mu nekk fierté. Mhm. comme fi la jàngee donc lool vraiment fierté la avec 67 extractions. très bien donc soo xayma si xaalis xaalis bi du jeex maanaam presque téeméeri yoo xam ne dund nañu ay bëy loolu xaalis bi du jeex la soo demoon ngeen di ko def. Mhm. yeneen yi rek ñu ngi ñëw mooy consultation générale bi. Mhm. gériatrie appareil ECG bi nga xam ne indiwoon nañ ko minimum tiir nañ ko 20 ECG soo ko doon multiplier par 15000. xaalis la lépp yëpp mouvement bi def ko tamit ñu ngi siy sant yàlla xam naa ne. su kanam tuuti dañu am statistique avec euh, waa xibaaru Bamb. ñu mën a wax de façon globale quand premier jet ñaata mara lañu am ak euh, naka la waa pathologie gën a. pathologie gën en tout cas li mu mën a man doomu dëkk bi la fii la juddoo fii laa màggee jàngee fii dalee fii amee fi certificat dem Koungheul donc lu ñu mën a woo rek dañuy ñëw président El Hadj Malick wax. mooy ouverture yi en tout cas man personnellement jox naa ko suma kàddu englobé mhm. mais dinaa si participer personnellement parce que loolu lañu am mhm. ah suñu fi jàngee ba yàlla moom la dénk dañu ñëw delloo ko dëkk mhm. leneen lu ñuy woo ëllëg tamit suñ ko mënee dañ ko def suñ ko mënul tamit duñ ci kenn dara liñ mën daal xam naa dañ ko def ñi nga xam ne nag suñu poos attan na ko parce que suñu poos suñu salaire du salaire nguur du xaalis nguur amuñ ndomb tànk donc li suñu poos attan rek la ñu mën a def euh, wax naa ko léegi organisateur yi pour la prochaine fois o va miser beaucoup maanaam prochaine fois c'est minimum cinq millions de médicaments en tout cas loolu mooy suñu yéene mhm. def ko sur deux jours parce que am na ñoo ne ñëw nañ xooluñ leen ñu ngi siy mhm. mais nit day sonn yenn heure yi suñ si tolloon nañ leen bindal loo xam ne du baax si ñoom moo tax ma ne équipe bi en tout cas prochaine fois mhm. ñu ngi koy président su koy def ñu def ko sur deux jours. génne une valeur de cinq a dix millions ñu def ko si parce que jar na mhm. on a vu que besoin yi mi ngi au niveau de la zone. oui la zone may woow docteur fii la ñu toll nii la ñu def donc waa Bambouk Santé à travers sa personne. Mhm. parce que man membre relation. waaw maa ngi leen wax ne bu ngeen amati même su ma mën ñëw invité ma. en tout cas bëgg naa ko di si participer. Mhm. même su fekkee du ma ñëw physiquement xool lu ñuy def ba nga xam ne dañ si mën a participer. Mhm. parce que si Koungheul Lour si Koungheul la bokk. ah donc ñun si Bambour mhm. ah donc vraiment ñu leen di gërëm lu amul ab bi ñoom ñoo ci def lépp. ñun dañoo ñëw rek en ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que gis nañ coordination du début à fin. ok la semaine chaque jour c'est trois appels. minimum jusqu'à temps dans la nuit mu ne la docteur nii nii nii ba démb ci moo si mujj ba tey si fajar. ok vraiment mention spéciale à Babou Seck. voilà merci beaucoup encore une fois tout di nuyu waa Louré di wax ne vraiment donc tey moom satisfaction totale lañ am ci li nga xam fekk donc bii mooy indi fois bokk nañ ko situation bi daal mais tey naa jéggi daal mhm. yàlla. parce que comité d'organisation am na benn taxawaay bu mat sëkk bu ci taxaw. ndax mi nga xam ne yaa yor wàllu xibaar yi yow Amadou Mahtar Sarr nga waroon def ci wàllum jàll information parce que l'information. 838 patients yi ñu jël ci à Lour. ça c'est 838 patients. sans dépistage. sans dépistage 838 patients. 838 patients. analyse mooy. maa ngi ko taxawlu d'abord ñoom la ñuy félicité ci initiative bi nii. da uh-huh. fekk xalaat ne seen gox am na ñoo xam ne seen loxo juru seen ginnaaw ñu am initiative organiser benn campagne médicale pour ñëw jàppale leen seen wér gu yaram loolu ñoom dañ leen siy félicité. encore aussi da fekk ñu xalaat ne Bamboul santé mu ngi si commune Ndour mu ngi si département Koungheul. te euh, commune bi si département bi la bokk lépp loo xam ne comme suñu sanitaire la bu ñu si wooyee ñu ngi si ñëw taxaw si kontaan si tey daal moom mbégte rek lañ si am journée bi yàggoon na mais toon mbégte rek lañ si am zone bi kenn sentir mhm. parce que ku ñu tegal bilan nga ne constaté ni presque neuf cent personnes mëna doo budul kontaan rek ngay def kontaan kon wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ñu ngi xalaat chaque édition incha allah bëgguñ leen ni mooy feren rek uh-huh. ñu ne chaque année ñu organiser ko au Bambouck santé ñu ñëw couvrir journée bi incha allah